mbokk yi lan doon wax ci maam Dabakh moom la ñu wax ci El Hadj Seydi Lamine Niass bi réew mi yëngoo jafe-jafe ci wàllu politique ci wàllu ko koom xel yëpp dañuy dem ca moom naan ana Seydi ay bu fi nekkoon moom Seydi Lamine Niass di jeene Seydi bu fi nekkoon ñetti at ginnaaw ba mu dëddoo dina wax yu bari ba ci troisième mandat bi dinañ ko ci xaar moom Seydi Lamine Niass na mu jëlee woon position ci référendum ba bàyyiwul dara mësta seetaan réew mi ci lenn moo tax ñu bari mun ñu woon kii di Seydi Lamine waaye ba mu demee lan xamoon ni am na fi njariñ ba mu demee lëkk ñëpp di jooy ba tey ji rangoñi faragul yàggul te lu ñëpp umpale woon mooy Seydi Lamine nitu jàmm la woon doon na dox ci diggante yi ndaxte fii ci mim réew di Sénégal am na ci ay diggante yu xajamoon réew mi taroon lool jafe-jafe yi bari woon loolu waaye Seydi da doon yor pusoom di dox ci suuf doon ko lijjanti mu doon ab diplomate boo xam ne ñi mu jubale ci réew mi bari nan cee burul woon moom waaye tamit doon na xelal kilifa yi nekkee ci bopp réew mi mu doon ab ministre conseiller boo xam ne kenn mësu ko takkal ndombal tànk waaye bëgg jàmm Seydi moo ba ko joxoon a yéenekaay bi Georges Nessa Diop ne Sidi noonu mu meloon moo tax mu nekk ab éternel incompris ba tey jii kenn mënul comprendre kenn mooy Sidi Lamine Niass waaye ba mu demee la ko ñëpp jooy moom Sidi ci fukkeelu xëtu yéenekaay Front de Terre bi moom ak groupe Walfadjri moo tax kii di Bakary Domingo Mané jël al bataaxal mel na ki yóbbanti jëmee ci El Hadj Sidi Lamine Niass ñetti at ginnaaw gi moom kenn du ko fàtte moom El Hadj Sidi Lamine Niass ñetti fan ci weeru décembre la dëddu moom kookile di Lamine Diack moom mi fekk El Hadj Sidi Lamine Niass yéenekaay bi di enquête ne Lamine Diack jaar-jaaram benn la moo tax kii di président Macky Sall ba ci Ousmane Sonko ñëpp ñoo ñi ko dolloo njukkal ba ci Khalifa Ababacar Sall mi fi doonoon maire bu Dakar yëkkati na ay kàddu ni maire bu Dakar bi woon di Lamine Diack baayam la Lamine Diack l'observateur ne démb la daw ay xelam yu mujj ci atum ans Lamine Diack ak a jaar-jaaram ak a seede Abdoulaye Makhtar Diop ak a Mamadou Koumé ak a kii di Alain ngi fàttali kan mooy Lamine Diack moom Diack dem na adieu président ni ko yéenekaay bi a waxee Lamine Diack dem na yéen kaay bi laas ne cet nag bu reyul semmal waaye teewul xandoor bu dambee ci waar wàcc na dori ba mooy sangam Diack lim fi def kenn mënu ko umpale moo tax yéen kaay bi di saat ne le parcours d'un homme multidimensionnel maanaam Lamine Diack am na fu mu tàmbalee rek waaye kenn mënu ko natt waaye baaxul Lamine Diack laalee na fu ne ci wàllu ko politique wàllu tàggat yaram moo tax yéen kaay yëpp ànd tàgge ko si du ko adieu président kon président Lamine bi fii ci mim di Sénégal tàmbaliwaat na ginnaaw coow lu bari li ci amoon ak xëccoo bu tar ci diggante nguur gi ak transporteurs yi taskatu xabaar yi nag ñu bari ci ñoom ñi di dawal kotu daamar yi dañ a nalawal ba ñu nalaw ñu doog a joxe xibaar bi ni ci samedi ji dañuy xëy maanaam grève ba jeex na moo tax mbooleem yéenikaay yi te nañ joxe xibaar bi ñoom ñëpp li wolof naan njëkk a yeew borom ndékki da ngay tëddaat waaye ñoom nag la leen dal moo njëkk a nalaw borom reer bi moo tax yéenikaay bi di bés bi ci bésu tay bi na vers un dégel maanaam mbir mi réglé na ci diggante transporteur ak nguur gi l'observateur ne waxtaan wi guddee woon na loolu Walfadjri ne gaay yi waxuñu kañ lañu dóor frein grève boobu le nag yéen i bi di source a gën a nekk nandite yeneen yéen i def ci ab chronique bi mooy ñi di syndicalistes yi la ñuy sàkku jëm ci tractation maanaam aldu kalpe yi ji leen takk yi di def ci tali bi yéen i bi def ci gëstu bu yaatu ne ñii di yi ñoom ña ngay sàkku ngir ñu bàyyi addu kalpe bi waaye loolu la buñ ko defee mën naa metti ci ñoom de ndaxte bari na ci ñoo xam ne seen oto yi ay ñànker lan ay xurda bu oto lan yor kon buñ appliqué lii di règlement bi rek te yi di ko def ci yoon wi dina tar ci ñoom loolu oto di feesee ci tali ña ngay dox ci yoon waaye bari na ci ñoom ñoo xam ne sàmmante ak yoon kon buñ tegee yoon ci seen kaw dina dis ci ñoom de ñoom ña ngay sàkk loo xam ne bis buñ ko tegee seen kaw dina loolu moo tax ci yéenikaay bi di le quotidien sucré salé mi nguur gi di syndicaliste yi ñoom ñëpp coolee fi ne rek waaye seen grève bi xamoon ñen ñoo ci pet moom mooy askan wi rek wi mënul woon dem ca dikkuñu comme gi sa ngëm yéenikaay bi di critique ne buñ deful nank ci grève bi Sénégal lam ca ñàkk bari na juróom-ñaar fukki milliards u perte El Hadj Mansour di économiste na grève boobu le Sénégal ñàkk na ko ci ndaxte lépp a taxawoon waaye réew mi est que am na luy dem ndaxte wàlluk wér gi yaram bi moom moo gën a sooxe lépp yéeni kaay bi di l'info ne député yi waaye waaye jafe-jafe yi am ci wàlluk wér gi yaram bi lan doon càmbar ci assemblée nationale toogee ko jëm ci budget bi ñu jàpp ni du budget wu dara xaalisu wér gi yaram bi ak fan koy dugal waaye te la ñuy fay ñi yëngu ci ku wér gi yaram doon lu néew loolu loolu lépp la député yi jël teg ci kanamu kii di Abdoulaye Diouf Sarr mi Decroix di Toussaint Manga di Aïda Mbodj ñoom daal feebar bi wér yaram gi feebar moom la ñu teg ci kanamu kii di Abdoulaye Diouf Sarr ko wax ni këru docteur yi ñoo gën a wopp ña koy fajo kan mooy faj sa morom nag ci dimanche yi ci diggante Cité ak Papa Sow yéen kaay bi ni sunu lamb ne lamb ji ne yëngu ci diggante Cité Papa Sow ci arène nationale lay doon dimanche waaye ci dimanche ji ci diggante Papa Sow ak Cité bëgg bëree bañ bëree moo tax yéen kaay bi di sunu lamb ne boobu la combat ku mën sa morom duma yéeni kaay bi di Walf Quotidien Lamine Diack dem na moo tax réew mi yëpp delloon nañ ko njukkal moo tax gars yi front de terre yi tënk Lamine Diack ci benn kàddu bidéo bu fenkoon suux na Lamine Diack dem na Seydi Lamine dem na waaye wal ko di Walf Quotidien Seydi cey bu fi nekkoon ak fi réew mi toll ma ne mi ngi fi ba léegi Seydi ndax ku jur doom deewoo te ku xool Walfadjri yi damuy doxee nga xam ne lawtal la ku ko appal juum Seydi ngi nii